di ndokkeel bu baax a baax itam imaam boobu nga xam ne dañ ko génnee ci am réew delloo ko fa mu dëkkoon wàcce ko fii senegal moom na sant yàlla te xam ne liggéeyam boobee am na jeexeet bokk yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam luñ ko génnee Makka jamono ba mu doonee Muhammad ibn Abdillah daal jàmm dong la séqoon ak ñëpp moom sax naka jëkk jàmm la ma sa séq ak waaye ñoom itam jàmm lañ séqoon ak moom waaye kañ la tàmbalee am jafe-jafe ba ko yàlla ne qul ya ya ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia demal ca digg ci ma ne leen mankat yàlla ma yónni ci yéen ñu ne li muy wax ku xam lu mu ñu laajante ko xam nañ ko de dañ ko bëggut a xam ca lañ ko tongale tongal mbooleem kuñ xam ne ànd nga ak moom ba génne ko dëkk ba fekk jëkk nañoo génne mbooloo moom àndaloon indi leen fii ci Afrique kon mbokk kuñ toñ toñal ci am réew ndax day wax ci yàlla nee na yonent bi nee na bañ génne ko réew ma xajootuñ ko fa na sant yàlla xam ne lislaam jaaxale woon na bis te Afrique la jëm si woon foofee mu jëm nag moom ku ñu fa jëlee da war a sant yàlla réew moomee ku ñu fa jëlee da war a sant yàlla ndax ñoom gënuñ ci seeni nawle ëpple wuñ ca ñoo ca yées ndax ñoo dañoo bañ yàlla naka jekk réew moom dañoo bañ yàlla neex naa wax fii ci réew mi ñu dëkk ñaata lañ fi faagaagal seeni maam xëccowuñ alal ñoom de xëccowuñ ay suuf ak ñoom waaye pas-pas bañ yor lañ bëggoon a ñoom ñu lànk ñu faagaagal leen jotewoo ñoom ñoom dara ba fi mu toll nii mënuñoo wax lu ñu jotee ak ñoom kon ba kuñ fa jëlee indiwaat la Afrique santal yàlla te xam ne sa liggéey am na jeexeet bokk yi ñooñu fi ma teg ne ñu yées ci seeni moroom ku ànd ak ñoom sax da ngay waaye kenn la ku ànd ak dañ lay da ngay ñeetaane donc waaye kenn du la ñee xoolal suñu réew yii rek xoolal ñi ñeneen àndal. ñu leen gën a def lu nekk ñu leen gën a njaxlaf ñu leen daq liggéey ñu leen gën a ñawam xel ñu leen ëpp xam-xam kon ko ànd na ñoom da ngay ñeetaane waaye kenn du leen ñee kon ku ñu fa jëlee ndax pas-pas santal yàlla te xam ne Afrique mi ngi lay gàttandu ak téeméeri loxo yam am tey laaj ku am ay yoxo yoom ko abal mu abal ko mu gàttandoo ko ko yàlla na ko yàlla may fan wu gudd te may ko wér te xam ne moom autoram dugg na ci nettali bi ñuy nettali ci lislaam ba faw ka génn itam wax ne danañ ko génn réew mi ndax lii xajowuñ ko fii it dana dellu yàgg dem sawara ñu fàtte ko dëggaate ko lislaam ci dund yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin